bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa nabiyina wa moolana muhammad wa ala alihi wa sahbihi mbokki internet yi ñu ngi dellu siwaat di leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp tabaarakallaahu rawatina ñi nga xamante ni dañoo baaxe di suivre site bii di Info ngir liggéeyam bu rafet ak liggéeyam bu jaar yoon ak liggéeyam bu sel comme nuñ ko baaxoo doon defee ak yéen xam ngeen ni jamono ju ne fu réew mi toll rek euh, waa Thiès Info ñi ngi ci ànd ak yéen di leen jox seen message plan yëpp nag rawatina ci mbir ci mbiru diine su fekkente ni dara xew na ci réew mi ñu fas yéene koo ànd di ko waxtaane ak yéen di ko partager ak yéen di ko séddoo ak yéen réew mi ñu nekk nag di Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax dem nañu sax ba naan pays laïque waaye rek ñu bàyyi xel ni mën nañu wax ni quatre-vingt-quinze pour cent sont des musulmans ah jullit ñooñu nag dañuy am gis-gis ñoom tam ci wàllu société bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ñun jullit ni fu ñu mën a nekk nañu ko jottalil donte la benn aaya la yeneen bi nee na fu ñu mën a nekk nañ ko jottalil donte la benn aaya la kon kiy wax du Suleymaan waaye li muy wax moo am solo jëmm ji amul solo ki ngeen di dégg amul solo kiy wax amul solo waaye li muy wax loolu la ñuy déglu ndax dëppoo na ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala déet ñu gis ni senegaal dafa toll ci période boo xam ni réew mi ñëpp jaxasoo ñëpp gëlëm ba kenn xamatul fooy teg sa tànk ngir lan benn nattu boo xam ni sunu borom moo ko wàccee ndax itam donte la sax dem nañu ba jiñ ko doomu aadama yi moo xam américains yi la moo xam chinois yi la feebar bi ñu tuddee coronavirus nga xam ni lëmbe na àdduna ñu doon woote wootelu mbuur ñu doon woote wootelu borom doole ñu doon woote wootelu kàttan ñoom ñoo ko am ñu doon woote woote lu ni pouvoir ñoo ko am damay poser question ba tey kenn tontoogu ma ñooñu laay laaj ana ñu tey fan la ñu nekk ñu juloon palaasu yàlla di taxawee taxawaayu yàlla bu leen neexee ñu ni suba day taw bu leen neexee ñu ni gannaaw suba day taw wala ñu ni lii mooy xew ci réew mi lii moo war a xew ñooñu laay laaj anañu depuis coronavirus bi ak tey gisuma leen dégguma leen ñi daan jël pouvoir yàlla di woote ni ay yàlla lañu parce que loolu lañ ko mën a tuddee nit di nga toll ci ñeme yàlla foo xam ni li ngay wax mën mënuñu koo tàqale ak yow yàlla nga bu fekkente ni Sénégal lu fi war a xew nga ni yow xam nga ko wala sa maam xam nga ko wala sa maama ñaanoon ci réew mi wala wala wala voir boobu lay laaj ñooñu anañu tey ci coronavirus bii anañu tey gars yi bu ñu làqatu nañ gore nag bu ñu làqatu nañ gore gore gi mooy nañu génn. ci lii yàlla def ñu génn wane seen doole wane seen pouvoir ci lii yàlla def coronavirus bi amul kenn ñëpp a ci am gàcce nag képp ku mës woote pouvoir boo xam bi danga koo incarné wara ni yow borom daraja nga boroom doole nga coronavirus bi bi mu ñëwee xamal na ne la yow doo dara xam nga lu tax wéet nga takk mask bañ la takk max masque dama foog ni demal demal bul takk max gel yaa ngi koy diwu sa loxo yaa doon woote ni kilifa nga am nga pouvoir am nga doole gel boobu ngay diwu sa loxo pourquoi nga koy diwu sa loxo yaa doon wax démb yaa yàlla yeneen fanaan yaa doon wax démb ni borom pouvoir nga yaa doon démb ni borom doole nga ana nga tey làqatu nga xam nga lu tax suñu borom jaarale na ko ci joomu aadama ñu am seen création am na ak amul américains yi la ak chinois yi la loolu lu mën a xew mbokk yi ñu dem ci suratul baqara su ma juumul nag mën naa ma jaawalee saar yi waaye daal yàlla wax na ni wala nabluwannakum bi shay'in min xaw fii yàlla neen dinaa leen nattu su ma leen nattoo di ngeen dem ba tiit tiitaange googu dal na Sénégal tiit nañu wala tiituñu ñëpp a tiit yàllaa ko waxoon wala nabluwannakum bi shay'in min xaw fii wal juu'i yàlla ne di ngeen dem ba dinaa leen nattu nattu boo xam ni xiif sax da leen jàpp xiifuñu amuñu problème gars yi xam nañ ko. lan moo tax chauffeur si di kaas coow lu ci réew fan yi problème bu bari bi lan moo tax xiif gi la parce que gars yi confiné wu nañu toog nañu seen biir kër yi dara doxul dépense amatul jëkkër a ngi xuloog jabar suñu borom di wane dooleem rek wala nablu wan na ko ma bi shay'in minal xawfi dinaa leen nattu ba ngeen tiit foog ni dara xewul naa leen nattu ba ngeen jaxle waaye nag yàlla yemul foofu minal jooy ngeen xiif ba du ngeen am lu ngeen lekk moo tax fi mu toll nii ñëpp jaxasoo koo wax mun na noo confinement bi doxul yàlla dugg ci secteur yëpp nag ndeysaan secteur yëpp sunu borom tëj ko koo yaakaar ku daan génnee di maye di tiitaru di tiitaru ci ci ci ci ci mbooloo yi di tiitaru ci jotaay yi di jël alal di ko wane di puukarewu gaa yi ana ngeen tey ana doole jooju deux mois sunu borom xamal leen ni du ngeen dara lu dul simple lu jaam maada takabur looy ngand ngandlu maada takabur looy dijj dijjlu alam tëkkun min mën yun tum naa wa baadu jiifatun uhay yi Seydi Haaji Malick nee na looy ngand ngandulu looy tiitar tiitarlu looy dijj dijjlu ndax nekk woon benn sperm rek boo xam ni su la sunu borom jël daajale ciy bind yow doomu aadama bi kon dañuy gis ni foofu am na détail am na leçon boo xam ni mën nañ ko ca jàng ñu géem a jàngat ci leçon boobu yàlla na dinaa leen nattu ci xiif dinaa leen nattu ci ci ngeen dem ba ragal wala nabluwannakum bi shay'in min xaw fi mooy ragal wal ay mooy xiif ba doo am loo lekk wal naq su minal amwaali yàlla nee na di ngeen dem ba bu ngeen xëyee du ngeen am dépense bu ngeen joxe gis nga wa naqsu min al amwaali yàlla nee na di ngeen dem ba du ngeen am dépense bu ngeen joxe sunu borom yemul foofu wal anfusi ngeen dem a dem ba dee yi bari mbokk yi coronavirus ñaata jëmm doomu aadama ñoo ci génn àdduna ñi ci génn àdduna kenn xamul nu mu toll damay wax ni ñi ci génn àdduna ndeysaan kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla yërëm leen yeesal seen yërmande te xare leen aljana waaye jàngat bi ñu ci am ñun waa Sénégal population wu senegal jàngat bi ñu ci war a am mooy ndekete wax yi dafa bari rek waaye kenn nekku fi ku dul sunu borom ndekete coow li li muy bari bari yépp kenn nekk fi ko dul yàlla wan min wa naqsu min al anwaali wala anfusi dee yi di bari ana kenn moo mën a fexe ba ñu war a dee du ñu dee yàlla wax nañu ko gis nga même bu ñu jëlee masque yu dul jeex bu ñu ko jëlee jël gel yu jeex lu am solo la nag al wiqaayatu xayrun min al alaaj fagaru moo gën faju ilzamu fi buyutikum baatu baatu ilzam baytaka boobu ñuy wax restez chez vous restez pour quoi pas sécurité la sécurité la de waaye suñu borom mooy wane boppam rek yàlla ne na ngeen daw coronavirus bi bii nii ngeen daw ko yàlla nee na ak ngeen ñàkk koo daw suñu borom moo mën a wax yàlla rek moo mën a wax keneen mënul wax yàlla moo éloquent moom suñu borom yàlla nee na ngeen daw coronavirus bi. ak ngeen ñàkk koo daw déglul yàlla ni muy waxee ay ayna ma takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada yàllaay karim nee na fu ngeen mën na ne yàlla nee na fu ngeen mën na nekk donte la da dem ba ca njobax talga ca kaw a kaw a kaw ngeen làqatu ko ca kaw montagne ya yàlla nee na ma yabal malakal mawtu mu ñëw waa loo ci mën du du coronavirus rek mooy rey mbokk yi yàlla ku ne ak fa muy jaaree ci yow xanaa dañu jàngul alquran ñu ku waat déggal yàlla fii nee na fu ngeen mën a nekk dinaa fa yebal malakal mawti ak fu ngeen mën a ne waaye déggal beneen aaya bi xul innal mawta alladina tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum daw mi ngeen di daw dee mi ngeen di daw coronavirus bi ngeen daw yàlla nee na fu ngeen mën a nekk bu fekkente ni coronavirus moo la rey moo la war a rey fa innahu mulaqikum mais da ngay dajeeg moom summa turadduuna ila alimil xaybi wa shahadata fa yunabbiukum bi ma kuntum taamaloon mbokk yi foofu nag lay waxanteel ñi nga xamante ni dañuy tere ñu suul ay néew ci seeni armeel ngir coronavirus attention ñi nga xam ni bëgguñu ñu suul néew yi ndax loolu jur na fi coow coow lu baree baree bari ndax bëgguñu ñu jël ay néew yoo xam ni dañu wax ni coronavirus moo leen dal ñu déplacé leen indi leen ci seen i armeel du ko fa suul bañ tax leen ñoom ñu bañ ni ñoom ànduñu ci loolu ñaari position la benn côté bi dañuy am dëgg dañu am dëgg de ñooñu noonu dañuy am dëgg ci benn côté bi fi ñu amee dëgg mooy néew yi fan la ñu jugee ba ñu war leen indi foofa suul leen ndax bul fàtte. xadis bi ñëpp sukkandiku te mooy yonent bi dafa wax ni su ngeen déggee taawoon maanaam feebar maanaam mbas am ci benn dëkk yonent bi nee na fa mu leen dalee ñooña nañu des foofa kon ku fa deewee jàppal ni foofooy sa suuf war nañ laa mën a suul foofu yéen ñi fi nekk tam bu leen dugg ci dëkk boobu toog leen ci dëkk yi ngeen ne dëkk bi ngeen nekk toog leen ca te wax boobu Omar ibn Khattab discussion bi mu doon def ak Abu Obaydata ibnu Jarrah ci la Abdourahman ibnu Awf fàttali Seydina Omar xadis bii nga xamante ni ci lañuy sukkandiku ba ni feebar bi fu mu am na fa nit ña toog bu ñu génn waaye bu ñu dugg kon loolu lu wér la kon ñooñu am nañu droit ci loolu noonu beneen bi nag dañu xam ni suuf si suufu suñu boroom la li am solo mooy ñu ñaan réew mii di senegaal feebar bii nga xam ni moo lëmbe àdduna jaxase àdduna ñu ñaan feebar bi jóge fii loolu am solo ñu ñaan feebar bi sunu borom jële ko fi mbokk yi nañ leen ñaan fa sa yakfikahumullah wa huwa samiul alim gaa yi xam nañu loolu mbir la fallaahu xayru xafzan gaa yi xam ngeen loolu ñaan gënu koo kawe kullama awqadu naaran lil xarbi atfa allah loolu ñaan gënu koo kawe ci wàllu défendre sa bopp salaamun xawlan min rabbin rahimin loolu ñaan la dara gënu koo kawe mbokke mboolem xeeti yi ñaan yi nga xam ni day defendre nit nañ ci sukkandiku pour yàlla dimbali ñu ci feebar bii kon loolu yi solution bi du ñàkk suul nit ki ci biir armeel yi du ñàkk sulli nit ki indi nit ki suul ko ci déplacé ko ci beneen indi ko déedéet problème bi nekkul foofu problème bi problème mu jikko la ñu war a defaraat suñu jikko bàyyi mooy yàlla gu bari gi nu nekkee tooñ yàlla gi ñuy tooñ guddeeg bëccëg bil xawli wal fi'li Sénégal nañu moytandiku loolu mag ñi ñaan nañu ba sonn mag ñi lu nekk def nañ ko pour réew mi yàlla sëmbërtël fi loolu ñuy wax jàmm waaye bis bu ñu xëyee ñu ngi def lu metti moo tax yàlla ni dinaa leen nattu wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi naa leen nattu ba ngeen tiit ba ngeen foog ni man sax amatuma man seen borom wal jooy dinaa leen nattu ci xiif gis nga xiif gi moo sonal askan wi actuellement Sénégal problème mu xiif lañu am yàlla waxoon nañu ko wa naqsu minal amwaali boo fëggee poos yi dara doxul wala anfusi dee mel ni tulli ak màlli kaa sàngam dëkk sàngam am na kaa diw sàngam deena sàngam barki démb diw deena ah quoi pas sunu borom waxoon nañu ko sunu borom waxoon nañu ko wa naqsu minal amwaali wal anfusi mbokk yi fi may daanele sama kàddu mooy wa basiri saabirina alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ne na maa ngi bégal sama gaay yi waaw xaritu yàlla yi yàlla nee na maa ngi leen di bëggal de samay xarit yàlla ñen ñooy say xarit muy wa basiri sabiri wa bashiri sabirina alladina ida asabatuhum musiba yàlla neen dinaa bégal sama jaam ñi nga xam ni su ma demee ba teg seen kaw feebar bu ñu tuddee coronavirus du ñu tiit du ñu jaaxle xam nga lu ñu wax xaalu ñun dey waa senegaal inna lillahi jógewuñu fenn fudul ci yow yàlla te ay na yéwén wa inna ilayhi raji'un yow yàlla ci yow la ñu jóge woon ci yow moomu lañuy ñuy dellu si yàlla ci yow moomu lañuy jóge waaye yàlla ci yow moomu ñu jóge ci yow moomu lañuy ñuy dellu si kon loolu dañuy gis ni jàngat bu rëy la boo xam ne ñun dañ ko war a am delloo siwaat lépp ci sunu boroom xam ni kenn nekk fi ku dul yàlla lii tax nag ah, mbokk yi tey loolu lañ doon ñëw ak yéen ci information boobu nga xam ni dégg nañ ko ci def ci bayaan partagé ko ak yéen comme niñ ko baaxoo di defee ak yéen fii ci Thiès Info ndax ku ne xam na Thiès Info liggéeyam bu yaatu ku ne xam na Thiès Info liggéeyam boo xam ne activité am yépp mooy fexe ba askan wi dara bañ leen rëcc ci wàllu information yàlla na yàlla aar ñëpp yàlla sàmm ñëpp yàlla suturaal ñëpp ci barki Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mbokk yi ñu dox daje incha allah ba beneen yoon ci beneen rubrique incha allah.